alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu bi Kossy bi nekk fi suba moo fi nekk am na ab jamono dara amu fi yàlla rek moo fi nekk waaye ba jamonoy tey jii ku àggu ci yàlla da yaakaar ne yow yaa ngi fi yàllaa ngi fi waaye ñu xam yàlla dëgg-dëgg dañuy xam ne yow nekkoo waaye yàlla rek moom moo fi nekk xaal boobu nag wala maqaama boobu nag nit ki war na caa góorgóorlu ba àgg moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam oo Seydina Aliyu ba mu ñëw mu daal ne ko Aliyu mu ne ko labayka mu ne ko kaana allahu wala shayun maahu mu ne ko am na benn jamono joo xam ne yàlla rek moom moo fi nekk dara nekkut fi lu may yàlla di xool Seydina Aliyu ba xam moom fu mu àgg ci yàlla Aliyu moom it ne ko boobu wan ana ala ma ne ko yàlla juuju nekkoon fa démb ba léegi yàlla juuju rek moom moo fi nekk bàyyi ñes radiyallaahu anhu moom nag ci yooyu la ñu yóbbu afa dara di am wax naa leen ne la yàlla nekk na fi te bis dana ñëw ñun ñii nekk fi dañ fi jóge yàlla rek moom moo fi desaat moo tax wax mu wax ñu ci alquran kullu man alayha fanin wa yabqa wajhu rabbika sul jalaali wal ikram yàlla nee na kullu man alayha faan lépp loo mën a gis lépp lu nekk rek nga yaakaar ne dafa nekk yàlla nee na loolu dafay jeex nga ne ko ana lan mooy des mu ne la jëmm yàlla ji rek moom moo fi des kon nag jëmm yàlla juuju nit ku nekk war naa góoru ba àgg ci moo tax bàyyi foofu la ñuy yóbbu ma ne am naa ab jamono yàlla rek moo fi nekk te ba léegi moo fi nekk waaye waxin la ba léegi rek moom moo fi nekk yàlla nag nekkam googu dafa nekk nekk goo xam ne lépp loo xam ne lu am la rek mu ngi amee ci ay yàlla yàlla moo ko amal yàlla nag ba mu nekkee toog lu yàgg ala kulli mu ne nag su ma nekkee sama wéetaay gii man yàlla su boobaa kenn du ma xam su boobaa duñ xam man sama daraja su boobaa kon man sama ñëw gi ana ban njariñ moom la yaam mu daal nag xaaral ma daal am lu ma amal loola mu amal nag mu nekk li nga xam ne mooy xaqiqatu muhammadiya xaqiqatu muhammadiya googu tasaaroo nag moo tax soo demee ci hadisul qudsi hadisul qudsi bi nga xam ne mooy wax ji nga xam ne directement si yàlla la bàyyeekoo amul benn intermédiaire boo xam ne moo koy yóbbu ci yonantu bi lu may yàlla rek ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy hadisul qudsi yàlla wax na ci hadisul qudsi ne kuntu لم أعرف فأحببت أن أعرف وقلعت قلقا فتعرفت إليه فبيعرفوني yàlla mu ne nekkoon naa ak trésor nekkoon naa am ndam bu xamuma waaye nag moo bëgg ñu xam ma waaye boo bëggee ñu xam ma nag ma ne foofu tamit duñ rek jaar fa dem waaye fokk ñu taxaw suñ mbokk Moustapha Badiane am na lu mu ci junj léegi yàlla bam na nekk naa di ak ndam bu kenn xamuma ma ne ndam googu mooy kan. soo ko tegalee képp koo xam ne ak àggu ci yàlla am ba xaaw su boobaa pour mu wax la lan mooy kënzu da ngay dégg mu naa la mooy nen ma ne jaam yi ndax yàlla moom xaj na ci nen ndax yàlla moom loolu du gàcce nga ne mooy nen bu yàlla nekkoon am na ñoo xam ne soo leen waxee lan mooy kënzu ñu ne mooy saaru néeg yàlla dafa mel ne dafa nekkoon ci am néeg ma ne ndax yàlla mu ne wa si'a kursiyyu samaawaati wal arda man sama gàngu bi moo moo ëpp asamaan ak suuf ndax kooku kon moom dana am place bu ko bu ko àttan moom yàlla loolu mënta nekk kon nag kënzu googu sëriñ bi la nañu ko moo tax na ñu ne bi sirika saati aliyati saasijan ay nul ama muti wa mutxifa bàyyi mu ne sir bi sirika saati aliyati mbóot bi nga xam ne yow yonent bi yaa ngi bàyyi ko ca saatu aliyati ma ne saatu aliyati mooy lan soo xamee kuntu kanzan kanzan kanzu googu soo boobaa da nga xam ne dëgg-dëgg kon waaja nag mooy waaja yàlla nag mu ne ma nekk ak kanzu léegi nag ma bëgg ñu xam ma ne mbir maa ngi noonu nag foofu la mbir mi commencé yàlla mu ne ma ma bëgg man ñu ma ma ne nit ki lépp loo xam ne ma koy def ma ne iradatul ilahi googu moom moo jiitu loolu nag ñu bëri dañ koy sàgganee yaakaar ne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 moom mooy awalu yàlla ndax alquran wax nañu ko ne huwa awal wal aaxir wa zahir wal baatin wa huwa bi kulli shay'in alim mu huwa moom mu huwa gi mooy lan waaw yàlla ku nekk xam na ne moom mooy jëmmi naxwu yàlla moo fi wàcce naxwu moo fi wàcce grammaire kon su taxawee ne huwa wal awalu moom moo njëkk kon su boobaa war nañ xam yàlla ku muy joxoñ kooku kan la kan moo njëkk ذلت سببا صدمي تباي بمنا لأيا أولا ويا آخرا وهو سائر ويا باطنا أنوريك لناصر بعدت بقرب واقتتمت بسرة فيا عجبا من باطن وظاهر فالأسماء والأوصاف والكون جملة حقيقة عين الساعة والله قادر سبوا بعد يقمني فلم يبق إلى الله لا شيء غيره فما ثم mawsuul wala sama baayinun sallallahu alayhi wa sallam su boobaa danga xam ne awaliyati yàlla googu góor yàlla yi junj nañ ko moom nag bàyyi na radiyallahu anhu moo ñu ko ñëw leeralal bàyyi nga ne ko ana fan nga ñuy leeralee yàlla lu mu njëkk a amal afa haqiqatu muhammadiya mu ne la demal ci jawaaya rasaayil mu ne la fal ahadiyatu tajali zaatun bi nafsiha an nafsiha laa nisbatan fiha illa huwa allahu ahad bàyyi mu ne ahadiyatu mooy tajalli bi nga xam ne zaat bi def na ko ci boppam ci biir boppam génnul boppam ci biir boppam la ko def waaye bàyyi mu ne foofa benn nisab amu fa lu may ahadiyatu ma ne am na ñoo xam ne dañu yaakaar ne sax nasab googu ahadiyatu moom la waaye bàyyi def na la fal ahadiyatu kon foofa benn nasab amu fa ndax lan moy tax ndax ahadiyatu mo def tajali waye ci bopam ci bir bopam wala mom yàlla mo def tajali tajali googu mom lañ tuddelu nak kon da ngay gis ne alquran mo tax mu nañu ne fa isaa nufiqa fi suri fala anzaba baynahum yawma isin wala yatasaalun yàlla ne suñu wale buftu bi su boba askan amatu fa mané buftu ba nag fa yàlla ne fa ahbabtu an uraf mané fofa buftu ba commencé nak di wal ci nonu nak su ko defee nag iraadatu ma ngi noonu ahadiyatu ma ngi noonu nga waaw bàyyi léegi nag ahadiyatu bu amee ana lan moo tegu ci ne nga xam ne moom mooy ahadiyatu wala expliquer ñu ana lan mooy aqiqatu muhammadiya bàyyi ne la ahadiyatu gannaaw ba mu amee nekkul ne dafa jékki-jékki rek aqiqatu muhammadiya daal di tëll waaye waahidiyatu moom def na tajali waahidiya nag mooy li nga xam ne tajali bi nga xam ne saat bi def na ko bàyyi nee nañ fal waa idiyatu tajali zaatu lil xaqiqati muhammadiya mu ne waa idiya mooy tajali bi nga xam ne zaat bi def na ko ci xaqiqatul muhammadiya kon da ngay gis ne waa idiya soo ko bëggee xam dëgg mooy tajaliya bi nga xam ne yàlla daf koo jékki-jékki daf daf ko tajal ci xaqiqatu muhammadiya bàyyi ne si nag radiallahu anhu mu ne la waaye nag wa maarifatu sirru zuhur waaye wa butuun tajali googu nag ci la ñu xamee li nga xam ne mooy sirru zuhur bi ma ne ana lan mooy zuhur gaa yi def muzaakara ba àgg ca nazabiya xam nañ lan mooy suur xam nañ lan mooy butuun xam nañ lan mooy butuunul butuun waaye xam lan mooy farqu xam lan mooy jamu xam nañ lan mooy jamul jamu xam nañ ba ba ba yëpp jeex jalaal jamaal kamaal su ko defee nag ñes mu ne la wa maarifatu siri zuhur fa la ñu xamee li nga xam ne mooy mbootab zuhur bi waaye ma buñ yaakaar ne siru suur bi lu mu ci namm rek mooy yonti sallallahu alayhi wa sallam waaye fekk ne ma ngay wax maqaamay ahmadiyatu mu ne waaye wa maarifatu sirul butun ci la ñu xamee ne nga xam ne mooy mboota butun mi bu yaakaar ne butun googu mooy ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane waaye jàppal ne mooy ki nga xam ne moom lañ yàlla doon wax naan da inna ibrahima kaana ummatan xaanitan lillahi hanifan walam yakun min al mushrikin kon da ngay gis ne kon yàlla def na tajali ci aadiyatu ahadiyatu moomit waahidiya taxaw def tajali muy aqiqatu muhammadiya aqiqatu muhammad googu nag moom la mboolem sufiyanki yi mboolem mboolem waykat yi ñoom it di way da ngay gis ne soo demee ci xilaasu saab bu seydi aji malik radiallahu anhu ma ngi lay taggal ne wa innahu is arada allahu nasatana abbaana min nuuri nuuran nabil alami sallallahu alayhi wa sallam seydi aji malik radiallahu anhu mu ne ba yàlla ndamee amal la nga xam ne moom mooy aalam bi ba yàlla namee amal mbindeef yi wa is innahu is araada allahu nasatana ba ñu yàlla namee amal mu ne abbaada ci la faccal doo wax ci la xaaj ndax soo waxee ne ci la xaaj dafay mel ni yàlla su boobaa dafay wàññeeku waaye abbaada ci la bëbbal moom yàlla min nuurihi sa leeram ga nuuru nabil alami leera ki nga xam ne moom mooy leera mborom àdduna bi te mooy yonti sallallahu alayhi wa sallam kon leer gaa ngi noonu leer googu nag bàyyi ñees moom la ñu koy toppal سودميتش سيدنا علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه مسنا تخو نان خلق الله نور محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يخلق السماوات والأرض والعرش والكرسي والجب والجنة والنار والدنيا والآخرة وآدم وسيسى ونوح وإبراهيم وسليمان وموسى وعيسى بستة مئة ألف عام وأربعة وعشرين ألف عام Seydina Aliyu mu ne yàlla dafa bind leer rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te fekk booba bindagut asamaan bindagut suuf bindagut aras bindagut kursiyu bindagut lawul mahfuus bindagut dara ci ñaata at mu ne lu toll ak juróom-benni téeméeri junniy at ak ñaar fukki junniy at ak ñeenti junniy at mu ne xoolal loolu kon yàgg na de. te ci atu yàlla yi lay doon si atu yàlla yi te juróom-benni téeméeri junniy at ak ñaar fukki junniy at ak ñeenti junni yoo xam ne yàlla bind na ko leer ak yonent alayhi salaatu wasalaam waxuma ko Seydina Aliyu moo ko wax soo ko weddee yaa xam ku weddi Aliyu weddi nga yonent bi ku weddi Aboubacar weddi nga yonent bi ku weddi Ousmane weddi nga yonent ku weddi ki nga ne mooy mooy Aboubacar ak mooy saxaaba koo ci weddi rek jàppal na weddi nga yonent bi sallallahu alayhi moo tax àll yu mu ne yàlla bind na leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu tolloog juróom-benni téeméeri junni at ak ñaar fukki junni at ak ñeenti junni nga ne ko waaw après nag lan la lan lan la amal mu ne ci noonu nag ci la yàlla daal di bind fukki ijaab ak ñaar bi bind fukki ijaab ak ñaar mu ne ñi nga xam ne dem nañ ci Mawlaaya Seex Cerno Aman Njaay ba mu sóob leen ba tarbiyu leen boo commencé leen ci li nga xam ne mooy muzaakara ana fan ngay dalee dugal ca ismullahi asam nga pare dugg ci li nga xam ne mooy tamisul asma nga pare dugg ca lan moom mooy xaqaayiq yi nga pare dugg ca lan yaa ngi dégg mazahir yi nga pare dugg ca lan aqaayiq yi nga pare dugg ca lan nasab yi nga pare dugg ci lan bam jeex yéen ma ko gën a xam yaakaar naa day nekk fukk ak ñaar ma ne ijaab yaa ngi noonu fukki ijaab ak ñaar gannaaw ba yàlla bindee leen ak yonent bi ci at yu bari yooyu gannaaw ga rek yàlla ijaab yi la daal di bind nag ñu ne waaw ijaab yooyu mooy yan ijaab ma ne ijaab yooyu bokk tak ñun suñu ijaab gi de pour ñàkk a xam yàlla déedéet bokkut de fekk booba yàlla ma ngi def ay mbiram ci yonent sallallahu alayhi mu bind ijaab yi nag bàyyi na sa dellaanu moom mu nettali ko Seydina yi di ko wax mu ne ba mu bindee fukki ijaab ak ñaar ijaab bu njëkk bi nun tudd mu ne ijaabul qudura noonu la tuddoon ijaabu ñaareel ba mooy ijaabul asama ñetteel bi mooy minna ñeenteel bi mooy rahma juróomeel bi mooy saada juróom-benneel bi mooy karama juróom-ñaareel bi mooy mansila juróom-ñetteel ba mooy hidaya juróom-ñeenteel ba mooy nubuwa juróom fukkeel ba mooy rifa fukk benn ba mooy taa fukk ak ñaar ca ijaab ya mooy shafaa yonent yi sallallahu alayhi wa sallam ma ngi leer ga yàlla bind fukki ijaab ak ñaar leer ijaab gu njëkk ba mooy kattan fa la ko yàlla joxe kattan bu ñaaree ba mooy màggaay fa la ko yàlla joxe mu màgg képp ku màgg rek yonent bi moom moo la màggal mu jox ko ijaabu xéewal képp ku am xéewal yonent bi sallallahu alayhi moo la xéewal mu jox ko fa rahma foofu la ko yàlla nomee mu nekk rahmatul mu'daat moo tax yàlla ne ko wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alayhi wasallam yónni wu ma la lu may nga nekk jëmmi yéen mooy may nga nekk yërmaande ci xeet bi yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ijaab bi nga xam ne nag moom moom mooy ijaabul saada yàlla def ko mu nekkoo koo xam ne muy texe moo tax képp ku gis yonent bi texe moo xam loo mën a doon soo gisee yonent bi texe beneen ijaab bi mooy karaama foofu yàlla foofu la ko yàlla joxe teraanga muy tabe beneen ijaab bi mooy manzila muy wàccuwaay beneen bi mooy njub beneen bi mooy nubuwa foofu lañ ko yónnee beneen bi moom mooy yëkkatiku beneen bi mooy topp beneen bi moom mooy yaram léegi nag maa ngi sa leer ga ba léegi xam nga ne fukki ijaab ak ñaar yonti bi sallallahu leeram nga ca ijaab yooya Baay Ñas radiyallahu anhu mu ne ijaabul qudura sax na fa fukki junni at ak ñaar yoo xam ne yonti bi sallallahu man ca ijaabul qudura di fa wéetal boroomam waaw bàyyi xel na nag boobu jëmm ga ñëwagut waaye leer ga moom moo fa nekk ba nga ne Baay Ñas yonent bi ba mu fa nekkee lan la doon wax mu ne subhaana rabbiyal aala kon yow muy julli buy xeeb subhaana rabbiyal aala ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeram gi ba yàlla bindee ijaab bi ijaabul qudura nekk na fa fukki junni at ak ñaar yoo xam ne da gis ne ma nga fa toog di sabbal naan subhaana rabbiyal aala subhaana rabbiyal aala waaw ijaabul asama mustaxfa fukki junni at ak benn doon wax naan subhaana aalimu siri wal aqfa sell ñeel yàlla mi nga xam ne moom moo xam lu nëbb waaye moo xoo moo xam lu feeñ ijaabul minna sax na fa li nga xam ne moom mooy fukki junni at lan lay wax subhaana rafial ala moom yonent bi man ca ijaabul man ca ijaabul minna fukki junni at di fa wax naan sell ñeel na yàlla bi nga xam ne moom moo yëkkati ku tamàgg ijaabu rahma mu yërmaane nekk na fa ñeen juróom-ñeenti ti ñeenti junni at ma ngi fay sabbal ma ngi naan subhaanal alimul hakim hijaabul mansila nekk na fa juróom-benni junni at ma ngay wax naan subhaana sil malikil ala ijaabul nubuwa nekk na fa ñeenti junni at ma ngay sabbal di wax naan subhanallah wa bi amdihi subhanallahi alazim ijaabu rifa nekk na fa ñetti junniy at ma ngay wax naan subhanal malikul qudus ijaabu taa am na fa ñaari at ma ngay wax naan subhaanal qadimul azali sell ñeel na yàlla mi nga xam ne moom mooy jiit moo jiitu waaye mooy azaliyatu mu ne ijaabu shafaata mooy ijaabu mujj gi nekk na fa junni at yoo xam ne ma ngay wax naan subhaanal malikul maabudi sell ñeel na buur bi nga xam ne moom rek lañ mën a jaamu kon ma ne mbokk yi ijaab yaa ngi noonu sallallahu alayhi wa sallam moo tax ki nga xam ne mooy bàyyi xam ba te muy abbas xool ko bam yaa gërëñ ne ko min qabliha tibta fi zilalin wa fi mustawdayin aysu yuxsaful waraxu ne ko yow dëgg-dëgg yow yonent bi tey nga ci lan yow yaay keral ki nga xam ne mooy yonent yàlla aadama alayhi salaatu wasalaam kee xam ne mooy aadama aadama aadama ci boppam yow yaa ko keral ba nga xamee ne yàlla def na bakkaar xëy na nag sëriñ si ñoom xam nañ bàkkaar buubu waaye loolu du bàkkaar ndax bakkaar buubu mu defoon yàlla ne ko wala taqraba haasi sajara fa takuna min azalimin bu leen jege garab gi bu leen ko lekk su ngeen ko lekkee da ngeen tooñ waaye lekk garab googa ma ne moo tax ñun ñu am soo demee ci riyaadu tafsir bu bàyyi ñës da nga dégg mu ne sufiyanke bi ki nga xam ne wax na ne su nekkoon moom moom konoon su boobaa dafay lekk garab ga ba lekkaay ba lekkaale xob ya xob ya sax daf koy lekk ndax mu ne ci lekk googa ci lañ xamee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la yonent bi amee ñun ci lañ amee ci lañ nangam mu wax bam jeex kon da ngay gis ne yonent yàlla ki nga xam ne moom mooy aadama alayhi salaam ba mu génnee aljanna nag yàlla daal di koy génn na ko léegi demal ba mu demee ba mu yàgg nag moom yaramu neen rek la def léegi nak ñu ut mu ut ay xop xop yoyé nak mom lañ daan taf ci yaram wi pour li nga xamné mom moy mooy jëmm ji suturawu ba du feñ waye nak abbas ne ko yow yonti sa yow ki nga xam yow yaay yonti sallallahu alayhi wasallam yow yaa suturaalal ki nga xam ne moom mooy alayhi salaam waaye nag wa fii mustawdaynaa suyux saful waraqu ba ñuy witti xob ya di ko taf seen kaw yow yonti sallallahu alayhi wa sa leer gi moom moo leen soye woon yo Adama ma ngi noonu da gis ne mooy Abul Bashar yàlla bind na ko ba mu bindee Adama daal di ne malaaka yi daal di ci jëmmi Adama ruuxu ne ko waaye jëmm jox kasaw ji naka laa ciy duggee mu daal di ko dugal muy wax mu ne malaaka yi sujjoot ak sikaral leen ko malaaka yi di ko sujjootal kom rek tey lu ana mulaana ana mulaana di ko puus. subhaana di ko puus di ko puus di ko puus baru dugg ci jëmmi aadama aadama tamit daal di ti sooli ba mu ti soolee rek ne alhamdulillah malaaka yi ne ko yarhamukallah kon da gis ne foofa am na lu bëri lu fa xew loo xam ne yéen xam ngeen man xam naa ku xamut xamut nag kon da ngay xam ne dëgg-dëgg da xam ne kon aadama wax na baat ba de ba aadama wax na wax na la nga xam ne mooy mbir ma waaye nag lan moo waral mu wax ko mooy leer ak yonti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa moom moo dugg ci moom léegi nag bu noonu nag yàlla ne waaw yéen malaaka yi aywa sujootal leen aadama malaaka yi ne ko ah yow yàlla ñun ndax danañ sujootal kii ñu daal di sujoot fekk afa buubu nag ba yàlla ne leen man damay bind koo xam ne day nekk sama représenté si kaw suuf nekk sama xalifa ci kaw suuf malaaka yi ne ko a atajaalu fiha man yusidu fiha wa yasuku dimaa wa naanu nusabbihu bi amdika wa nuqaddisu laka yàlla na leen qaala inni aalamu ma la taalamuun ñu ne ko yow yàlla ñun ay malaaka lañ te dañuy jaamu yàlla dañ lay sellal ñun duñ la mooy ndax da ngay bind koo xam ne su ñëwee fii nii daf lay mooy di mooy yàlla di tuur deret di def nangam yàlla ne leen xam naa lu ngeen xamutoon ba mu bindee aadama nag ba aadama ñëw amee nag ba nekk aadama muy egg sama malaaka yi malaaka yi ñëw mu ne waaw yow aadama malaaka yi lii lan la malaaka yi ne ha subhaana yow yàlla ñun de xamul lii lu may nga xamal ñu ko yow yàlla yow la nga xamal ñu ko illa ma alamtana yow yàlla foog nga xamal ñu ko lu ko mooy ñun duñ ko xam mu ne aadama kaay aadama lii lan la aadama commencé moom it lu nekk rek mu wax lu nekk mu wax lu nekk mu wax foofu nag da ngay gis ne suñ sëriñ Mawlaaya Cerno Aman Njaay gàgganti na fa ñi nga xamne ñoy ñooy ñi nga xamne ñoy sëñ daara yi ñi nga xamne nangam ndax bu ci ñeuk dafa wax ne ba yàlla waxe ne wa isqala rabbuka lil malaika inni ja'ilu fil ardi khalifa qaala ataj'alu fiihaa ma yufsidu fiihaa wa yasku dima wa nanu sabbi bi amdika wa nuqaddisu laka qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa al adama asma'a asmaaa suma raduhum ala al malaika fa qala anbiuni bi asma'i haa'ulaa'i in kuntum sadiqin Mawlaay Cerno Amadou Ndiaye mu ne taxaw leen seetlu ñu ne ko haa mu ne bi asmaayi haulaahi moom la moom la yàlla wax bi asmaayi haulaahi te mu ne arab bu waxee haulaahi mooy gaa yaa ngi nii turu gaa yi nii ñan lañ ma ne xoolal loolu num ñu ci dimbalee dëgg dëgg loolu nag moom mooy sëriñ moo tax mu ne ci turu gaa ñi ku àggut ci fuufu wala ku amul sëriñ bu mel noonu da yaakaar ne bi asmaayi a da nga yaakaar ne mooy semmiñ paaka ganaar jaasi yat nangam ma ne déedéet bi asmaay a ulaayi a ulaayi gaañi la gaañi gaañu ñu nag ñan la waaye soo xamee ahadiyatu xam la nga xam ne mooy muhammadiyatu xam ahmadiyatu xam xilaafatu su boobaa da nga xam ne dëgg dëgg bi asmaay a ulaayi gaa yaa ngi noonu rek gaa yaa ngi noonu ku ko xam-xam na ku ka xamul demal nga jëm koo xami ci nuunu nag Adama moom it daal di wax yàlla ne ko waaw lii nangam la lee nangam la waaw zaat ma nga nele waaw gannaaw zaat lee na ma nga nee gannaaw lee lee ma nga ne waaw du ma ko wax nag mu leer yéen ma ko gën a xam su ko defee nag ci loolu lay mbir mi nag yàlla ne leen lu ma leen waxoon inni alamu maa laa taalamuun man xam naa yéen lu ngeen xamu toon moo tax nag aadama nekk xalifa yàlla ci kaw suuf aadama moomu nag ba nga xamee ne yàlla dugal na ko aljanna ba génne ko dafa génn ba mu génnee nag mu ne man maa ngi xool ci asamaan فما جسم بن لا إله إلا الله جسنا تبقى بني دف محمد رسول الله ما دالنا يو يلا ما نيان شدرا جاي محمد رسول الله مي يلا نم جيغل سمي باكاري نقام ندفناكو بغي جنم الجنة يلا مومي دالي كوي صح عباد mooy fatalaqaa aadamu min rabbihi kalimatin fataaba alayhi innahu wa tawaabu rahim yàlla daal di koy jox baat yi ne ko acc nag léegi jéggalul ñu ne baat yooyu mooy lan ñu ne mooy rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa taramna lanakunanna min alxaasirin sallallahu alayhi wa sallam kon leer ak haqiqatu muhammadiyatu moom moo dimbale ki nga xam ne mooy aadama alayhi salaam ba aadama delluwaat ca lam nekkoon kon ma ne leer googu yàgg na di dem de te booba muhammad ibnu abdullah boobu ñëwagut waaye muhammadu rasulullah ma ngay dem di ma ngay daw rek di daw di daw di daw xaw ma nag fan lay teeree waaye ma ngi noonu ñu topp leer ga ba xam ko ci noonu nga ñëw ci ki nga xam ne moom mooy nuhun alayhi salaam yonti yàlla nuhun yàlla yónni na ko muy oo ay nitam lu tolloog junni at yoo xam ne juróom fukki at rek ñoom ñu moo ci des متوقبم يا قد قراسي نربي لا تزر على الأرض من الكافرين ديارا إنك انتصرهم يدلوا إبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا نيو يلا واني اونا لين بسون نغمون ما لغينا قنا دونن الك يالا نكو اه يو لون غاي واخ وا كون نك باخنا اوتال غال مو يات غال غا ديفار كو بام باخ نكو دوغال كيب كولا غمنا دوغو سي غال غي وايو كولا غموت سو بابا بايكو توفان مي دنا نيو دالو كوي لاب labal yonte yàlla nuuhun alayhi salaam dafa gal dugg ca bir gaal gaa ngay daw ca ndox ma ba yàlla muccal ko moom nuun ak ñi nga xam ne moo ñoo ko gëmoon ku yonte bis nga alaku bàyyi na radiyallahu anhu leer ak awalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjaali moo muccal ki nga xam ne mooy yonte yàlla nuuhu alayhi salaam nga ñëw ci ki nga xam nga nañ ko ci kàccoor bu bonta moy Firawna mu nekk ak moom di ko waar guddi ak bëccëg firawna dëmb mbëru ba yaakaar ne moom mooy yàlla ba ne anna rabbukumul aala man maay seen boroom bu gën a kowe waaye bàyyi mu ne bu ko gëmoon nekk ko waaye gëmu ko dëgg-dëgg kon nag gëmu ko waaye moo tax nag mu ne waaw fir Moussa ne ko déedéet yow doo yàlla yàlla kay mooy ki nga xam ne kenn la yàlla du nekk ñaar yàlla moom mooy tawal yàlla moom mooy saxal yàlla nangam waaye nag Moussa dem ba mujj gi فرعون دادنا خار كي دادنا اخري دنا كو سكل بخه يالا دادي باي با اي اي اي تا اي اور اي فن مدادي وحيو كي قمن موي موسى فاوحى الى موسى يعني دغ ان القي اساك البحر فانفلق فكان كل فرق كتود عظيم يالا موني وخلو تي القران نمن ما وحيو موسى نكو لغي نغا ген سو ديمي jëlal sa yat wi nga daal di koy dóor boo ko duuree géej gi dana xar def fukki sew ne ak ñaar yoo xam ne giir gi danañ ci mën a jaar mu ne fukk ak ñaar yi ijaab yaa nga noonu ñëwaat nañ ci Moussa ma ne nañ leen di fàttaliku di xaatir ci yàlla lépp lu ñëwoon rek day ñëwaat yàlla ba Moussa jëlee yat wi dóor ko géej gi xar géej gu giir gu nekk rek daal di ànd ak fameem daal di jàll Firawna mu ne xay Moussa jàll na xaaral ma ma ñëw jàll Moussa moom it ñëw fas wa commencé di bajantu saytaane yi ak rambaaju nekk ci gannaawam daan ko jay naan ko waaye buur yow yaa yàlla dugal ndox mi doo def dara dugal xanaa ñi ma woo wàññeeku mu daal ne waaw man ka duma ma wàññeeku mu daal di dugg yàlla di ko teelu rek xam nga teelu nit yàlla di ko teelu fas waa ngay dugg yàlla di ko teelu muy dugg ba ca digg géej ga yàlla tamit ma ngay suuxal fas waa fas waa ngay dem fas waa ngay dem mu firawna mag naan laa ilaha illa alladi amanat bi banu israil wa anna min al firawna ne amul kenn ku ma war a jaamu lu may yàllaay ki nga xam ne mooy banu israil xam nga booba moom ngay commencé yëg ne day gëm yàlla ne ko déedéet al ana wa qad asayta min qabl wa kunta min al min al mufsidin ne ko nga toog ba jamono jii nii nga xam ne xef ak yaa ngi ci dee nga ne da ngay gëm déedéet loolu duma ko nangu yàlla bàyyi ñes nag mu ne yonti yàlla Muusa la ko muccaloon ci firawna mooy nuuruhu awalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjali sallallahu alayhi wa sallam nga ñëw ci ki nga na ne mooy yonti yàlla ibrahim mooy abu tawhid yonti yàlla ibrahim dafa ma sa toog ne waaw yaay man kan mooy sama borom mu ne man maay sa borom mu ne ko waa yow kan mooy sa borom mu ne ko sa baay mu ne ko sama baay kan mooy boromam mu ne ko namruut mu ne ko namruut kan mooy boromam rek mu tëj gémmiñ gi hay yow xanaa da ngaa repp lii nga wax ni bu la sa baay déggee da ngaa musiba de fekk ne foofu nag tafsir tafsirkat yi daan nañ ci xaw daan nañ ci juum ndax dañoo jàppoon ne Ibrahima asara mooy baayam Seydi ba Badiane dana xam loolu moom moom mi nga xam ne mooy jëmmi Riyad macha allah bàyyi mu ne déedéet baayu ki nga xam ne moom mooy yonti yàlla Ibrahim nekkut mu ne ndax lan moo tax mooy ba waxee wa is qaala Ibrahim li abi asara baay mu ne alquran ñàkkut a fasaa bu waxee ni abi Ibrahim konoon jarutut bu doon baayam dëgg konoon du indi azara waye nak asara gum indi mo lay wane ne du bayam waye bay te xam la ndax yonti yàlla ibrahim du juddu ci kever xolal lolu xolal gaganti gugu rek wallahi yàlla ñu yàlla fayal bay ne radiallahu anhu noonu nag ibrahima moom it daal di toog ba mu yàgg mu daal di ne waaw soxna si daal di dem ci bay ci ci ci papam papa bay te xam nako xale bi de dégg naa muy wax lo xamne su ko nit ñi degge musiba dana am mu nako lu wax mu nako demal nga laaj ko mu ñew ci moom ne ko ibrahim loo wax mu ne ko bay damaa wax ne man kan moy sama borom mu ne ko sa yaay mu ne ko waa sa yaay mo sama yaay moom kan moy boromam mu ne ko xana man mu ne ko wa yow kan moy sa borom mu ne ko namrud moy bur bi mu ne ko waa burbi, bi mom kan mom boromam ja dal di koy do tël mbéj ne ko mu ma ko ne sa ibrahim jaxle ñun ci nonu rek mu tok ba guddi jot yalla timi dal di dal di feñal ben bidiw mu genn mooy fala la maa jëm naa lay lay raxaa kawkaban qaala haza rabbi ibrahim toog ba mu yàgg rek daal di gis biddiw bi mu ne kon man la ma laaj lii mooy sama yàlla mu toogaat ba mu la yàgg rek affaire bi suux fa la afala qaala laa uhibbul aafiliin mu ne man bëgguma luy suux man Ibrahima yàlla ju ma bëgg moom def naan dàng dàngaaral du fi jóge benn yoon mu toogaat ba mu rek yàlla daal di feeñal ci moom weer fa la maa qamara baasiqan قال هذا ربي متوك بام يا غيس ويروي منا اه ويرد مو غنا راي فيديو خنا كون كي موي سما بروم متوك بام يا غرك غيس فيديو بي سوخ من يو يالا لا ان لم يعدني ربي لاكون من قوم الضالين من قوم الضالين ولا ظالمين ونكو يو يالا سنة كينا يو جندي وما كون دنا بوك جيرير كادي قنا دوما جندي يو يالا متوك بام يا غرك دادي غيسات جنت من هي فلما رأى سمسة باسقة xaala xeela rabbi haza akbar yaa ngi dégg waaye nag ba mu suuxee mu toog ba mu yàgg ne wallahi yow yàlla soo ma mu daal di ne yaa qawmi qaala yaa qawmi mu ne inni wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi ani fan wa ma ana min al mushrikin gis nga lu bajaan doon wax léegi ma ngi noonu min al mushrikin bàyyi ñes foofu tamit ñu taxaw bàyyi ñes mu ne yonte yàlla ibrahim gis na bidiw gis na weer gis na jant mu ne bidiw yooyu mu doon gis nekkul ne bidiw la ndax mu ne bu nekkoon bidiw la konoon ba muy utilisé utilisé ci grammaire bi mooy ci arabe bi konoon su ñëwee du wax ne haasa rabbi waaye su boobaa konoon day wax ne saalika rabbi ndax mu ne bidiw fu kowe lay nekk te ñun naxwu ñi nga xam ne dañoo jàng grammaire xam nax wu su wax lu sori su boobaa wax ji dafay dafay gudd mooy comme nga ne saalikal kitab boo ne saalika su boobaa xam ne saa ismu isaara laam lil buux kaaf lil kitab lu la ñuy lu la wax waaye nag mu ne kon lan moo tax waxut saalika nujum waaye daf ne waxut saalika rabbi waaye daf ne haza rabbi xoolal haza haza mooy comme nu nga jegee nii waa ji ak nu mu gën a wala lu ko gën a jege mu ne taxawaatal beneen bi ba muy wax weer waxut ba tey li nga xam ne mooy saalika waaye hësa wax mu ne ba mu ba ci jant bi timit la mu waroon a wax mooy tilka tilka la waroon a utiliser ndax jam jant dañ koy jigéenal yaa ngi dégg waaye utiliser wu la nga xam ne mooy jigéen waaye dafa ñëw rek ne asaara bi bàyyi mu ne ñi nga xam ne mooy muhammadi yuuna yi ak yonantu yi ñoom seen fannaawu dafay gaaw a jeex xefe xippi rek yàlla dafa leen taw xif taw fii mu jeex mu ne Ibrahima nag ba muy naan xaasa rabbi ci bidiw bi bàyyi nee na booba dafa jeex takk ci jëmm yàlla ji bu ne xaasa rabbi ci xamaru bi mu ne booba dafa jeex takk gisul dara lu may yàlla rek la gis moo tax mu ne xaasa moo tax affaire bi jege ko jege ko ba yàlla nañu ne wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid man yàlla maa leen gën a jege seen bu mu xol nga ko waa léegi jant bi nag mu ne jant bi nag foofu la wuuree moom Ibrahim léegi nag am na baqaa'u loolu moo tax mu utiliser ñetti yëpp ne haasa haasa haasa waaye nag nekku na da ngaa yaakaar ne biddiw ak jant la ak weer la jërëjëf Baye Niass Ibrahim moomu nag ci noonu rek mu daal na waa Baye man nag lii moom xaw ma ko yéen ku ngeen di jaamu mooy kan ñu ne ko dojee xërëm yi ñu daal di toog ba benn feet am ñu ko Ibrahim nañ dem feet yi moo leen inni saqimun man damaa feebar fekk na booba am na lu mu bëgg mu bàyyi ba gaa yépp dem Ibrahima jël semmiñ yi jàpp xërëm yi di toj jàpp xërëm yi di toj ba mu des benn bu mag mu daal di jël semmiñ woo wékkal ko ci bu mag ba toog xaar gaa yi ñëw ba gaa yi ñëwee ñu daal di ne hee ay am na suñ xërëm yi ñu fi yi woon di ko jaamu toj nañ yëpp ba mu des benn ñu ne Ibrahima de moom demu toon est-ce duñ ko laaj boobu ne waa indi leen ma Ibrahima ibrahim daal di ñëw ba mu ñëwee ñu ne ko ah ibrahima afalta zabi alatina ya ibrahim ndax yow yaa def lii suñu yàlla yow ibrahim ibrahim toog ba mu yàgg ne leen ah maa ngi ni yéen a ngi yàlla yaa ngi noonu laaj leen bu mag bi est-ce que nekkul bu mag bi moom moo doon xeex yu ndaw yi door leen bañ dee xanaa gisu leen semmiñ bi bu wekk ci koom ñu toog ba mu yàgg su ma nukki su ala ruhusim ñu njett seen bopp yi toog ba yàgg ne ko waaye yow ibrahim xam nga ne ñii duñ wax Ibrahima am occasion nag taxaw ne leen uffil lakum wa lima taabuduna min dunillah jàmm yéen lu ngeen di jaamu loo xam ne du wax loo xam ne soo ko joxee lekk du lekk soo ko joxee naan du naan kon yéen afala taqiluna ndax du ngeen am xel ngeen bàyyi loolu ñëw jaamu yàlla Namrud ne kii su ma ko rayut wala su ma ko pexeelu danaa am lu xew mu daal dina ko waaw man di yàlla laa Namrud ne ko man yàlla laa mu ne ko luy sa tegtal Ibrahima ne ko yàlla moom mooy bind mooy rey Namrud ne ko lu mën naa ko di génnee sa mbooloo ma ñaari nit ñu indi ko ba ci peggam rek mu jël kenn ki dagg doq gi jël kenn ki ne ko demal ne ko ay Ibrahim def naa ko di dundal naa kii bàyyi naa kee rey naa kene ne kon kay man maa yàlla ci noonu Ibrahim xam ne loolu yomb na mu ne ko waa yàlla nag léegi moom jant bi moom ci penku bi moom lay moom lay fenkee di jëm saw léegi nag yow def ko muy fenkee ci saw jëm ya nga xam ne mooy penku mu toog ba mu yàgg fa bu hiital la si kafar mu wejam xamatul lu muy wax ci la ne taxal ni leen ma ay matt utal leen ma ay matt mbooleem ñu nekkoon ci gannaawam uti ay matt ñu taxañ ko taal sébbalisa mbir maa ngay tàkk ba nga xam ne mbooleem picc bu nekk ci kaw asamaan bu tiimee safara si daanu la xam ñu ne waaw jël leen Ibrahima dugal ko ci biir ñu ne xaa awaay Namruud yaa ku mel ni Ibrahima ngay dugal ci biir mu ne dugal leen kii su ma ko rayut sama nguur gi dana ko folli ci noonu Ibrahima ñu yëkkati ko mu diis bañ ko yëkkatee mu diis am kenn ci gaa yi ne leen waaye kii xam ngeen ne malaaka yi ñoo ko téye ba attanu leen ko ana jigeen ñi ñu ne ña nii mu ne leen muri leen seen seen awra yi jigéen ñi mu muri seen awra yi rek malaaka yi ne mes ndax xam nañ ne malaaka du gis awra yi jigéen ñu ne mes dem seen yoon kon nag jigéen ñi bàyyi leen xel ci loolu waa mooy bopp rek su ko ci noonu nag moom mooy bopp su ko defee nag ci noonu nag Ibrahima yëkkati ko sànni ko sa safara sa ma sa biir safara sa moom toog di jaamu jaamu yàlla rek waaw toog di jaamu yàlla gaa yaa ngay fet yaakaar na Ibrahima moom xam na ba ñor toog ba mu yàgg rek ñëw ne ka ah sa borom nee na ndax bu ne bëgg mu dimbale la mu na ka yàlla xam gum xam ne maa ngi fii loolu doy na ma walis ma ut ci moom ci keneen dimbal wala ci moom lu may xam na ko rek lu mu def baax na yàlla tamit daal di ne wallaay yow Jibril ke sama jaam la boo xam ne dëgg-dëgg am na tawhid dëgg-dëgg-dëgg ku jeex la waaye yow safara si fexeel ba buy lakk ibrahim daal ne qul yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahim ne ay yow safara si defal ndànk nekkal sedd waaye sedd bu ànd ak jàmm xoolal bàyyi foofu nee na su waxutoon bardan wa salaaman konoon sedd moom mooy mujj lor ibrahim kon ñaan dañ koy xam ñaan da ngay xam nu ngay ñaanee léeg-léeg nit ki di ñaan di ñaan ba mu jigee ñaan ga koy mujju lor waaye nag tey bu waxoon bu ko yàlla waxoon ba dan kese ko su boobaa sedd bi danga koy gaañ waaye wasalaaman gi moo ko jàmmal ñu toog ba mu yàgg rek gis Ibrahim ñëw yaakaar ne dee na ñu ñëw gis ko ca biir safara sama ngay toog di jaamu yàlla amatuñ ci pexe nag ci noonu nag Baay Ñas mu ne Ibrahim alayhi salaam lu ko muccaloon mooy nuuruhu awalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjaali sallallahu alayhi wa sallam nga ñëw ci ki nga xam ne moom mooy yaa yunus yonti yàlla yunus moom it yi nañ ko muy oote di oote di oote ba mu jigi mu toog ba mu yàggee gaa yi gëmuñ ko wala ñu ko gëm tuuti la rek xam naa ne xol bi dafa léeg-léeg xaw a kii léegi mu daal di ne xaaral man ma gàddaay génn dëkk bi ba mu gàddaayee dugg ci benn gaal gaal gi dem ba mu yàgg commencé dëng di waaj daanu ñu nekk ci gaal gi ne gaal gi de waxtu wu defaat nii am na jaam boo xam ne dafa tooñ borom moom dugg ci moo tax mu di ko mu di ko def ñu daal ne kon nañ taxaw xool kan la ndeysaan yonti yàlla Yunus balaa ñuy agsi si moom rek mu plongé wu dugg ci biir géej gi ba mu duggee ci biir géej gi yaakaar ne loolu moo koy muccal jën wa daal di ko fay fekk daal di koy wan ba ko jën wa wannee bàyyi mu ne xoolal fi ne moom ci benn lëndam rek la nekkoon waaye tey ma ngi ci ñetti lëndam ma ngi ci lëndam géej gi ma ngi ci lëndam ak jën wi man ngi ci lëndam ak guddi gi ñetti jën lëndam yépp mu boole ko waaye foofa tamit beneen beneen junj la boo xam ne ñetti lëndam yooyu fokk mu denc ci yow nga doog a mën a janoog affaire ba Yunus toog ba mu yàgg rek daal di yàlla daal di koy ne ko waaw léegi nag mu ne laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min asalimin daal di jéggalu yàlla yàlla daal di koy jéggal موتا القران نيو ان يونس لمن المرسلين اذ الى الفلك مسهول فسام فكان من المدادين فتقموا اوتوه ملم فلولا انه كان من المسبين للبث في بطنه الى يوم يبعثون فنبسناه بالعراء وهو سقيم بالله القران موي دغ باي رك موم مو نيو خمال لولو واي جيرا جيف تي امنا امان جاي ياو يا يو خمال لولو تيميت يالا يالا فايلا bàyyi yàlla mu ne man ba ba nga ne yunus moom dugg na ci ñetti lëndam yooyu ci noonu ci la wax laa ilaa ilaa anta subhanaka inni kuntu min salimin ñu daal di koy musal bàyyi ñes mu ne est-ce que xam ngeen lan moo ko muccal ñu ne ko aha mu ne nuuruhu awalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjali sallallahu alayhi wa sallam bàyyi ñes mu ne leer gi moom mooko ko muccal waaye bu taxutoon leer gi konoon yonent bi sallallahu alayhi wa konoon Ibrahim wala Yunus konoon du mucc de nga gis ne kon mboolem yonent yi rek soo leen doon topp di leen topp di leen topp da ngay gis ne dëgg dëgg leer rek yonent yi sallallahu alayhi wasallam moo leen dimbale moo tax yàlla afa mu yónni benn yonentu daf leen a taxaw ne leen su ngeen nangoo am na yonentu buy ñëw mujj ak jamono yonentu boobu su mujjee bu ñëwee da ngeen ko wax seeni xeet waaye danañ leen gëm ngeen wax leen ko su ngeen nangoo ma doog leen noomee ngeen nekk ay yonantu su ngeen ko nanguwul nag ma baleen ñoom ñëpp dañoo daal di nangu ne waaw yonantu boobu nu mu tudd yàlla ne leen waaw dina ñëw Muhammad lay tudd waaye léeg-léeg mu xaw a nekk nangam ak nangam nangam ba ci soo demee ci wa mubashiram bi rasuli yaati min baadi ismu Ahmad da gis ne foofu leeral na ko fa moom Isa alayhi salaam Isa moomu ba mu ñëwee moom it toog rek di oote di oote di oote yàlla may ko. ay sa yoo xam ne day fekk nit ku dee mu dóor la nga jug dox fekk nit ku silma xamul laal la nga daal di wér ba ñëpp naan waa Insa léegi yàlla la yàlla la am ñu naan léegi doomu yàlla la yàlla ne leen def leen ndànk nag lu leen di def nii moom euh, baaxu de da ngeen di bokkaale Insa muumu da gis ne keroog ba nga xamee ne dajale nañ bëgg koo rey ba tëj ko ci benn mbir benn néeg dangay gis ne yàlla daf na ñokket ki nga xam ne mooy Insa indi beneen waay teg ko fa ñoom ñu ñëw rey Insa salab ko daaj ko ci kurwa moo tax ñoom ba léegi dañu yaakaar ne Insa rey nañ ko waaye Insa moom reyuñ ko moo tax Baay Ñas nañu ne fa yaati masii'u wa rijaalu rijaalu bi diini l-imaami l-haasimi yatadayyanu hunaalika amma l-faydu laa shakka lan taraasi wal aarifu billaahi wa shar'u mutqinu Baay Ñas mu ne ha dëgg-dëgg ku ngeen yaakaar ne kooku muy Insa ne dee dana ñëw waaye loolu nag ñoom ñeneen ñi ñoom ñoo ko gën a xam ala kulli mu ne Insa moomu kon dangay gis Baay Ñas mu ne Insa ku lu ko mooy nuuruhu awalul wujudi wujudan fa huwa aslul usuli wal anjaali leer googu nag continuer di dem moom yonent bi sallallahu alayhi moo tax benn bis yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne awalu maa xalaqa allaahu taala nuuri wa nuuri xalaqa allaahu kulla shayin yàlla yonent bi mooy wax de mu ne yàlla sama leer gi la njëkk a bind lépp lum bindaat ci sama leer gi la ko bindee man yonent ti sallallahu wa salaam kon ana ñi nga xam ne dañuy wax lu mu amut te addis bi addis bu weer moom la yonent bi sallallahu alayhi salaam Seydina Omar radiyallahu anhu benn bis doon na wax ak yonent bi yonent bi xam naa def ko doon exame naan ko attadiri yaa Omar man ama man ana mu ko Omar est-ce xam nga man may kan xolal yonent bi de moo Omar est-ce xam nga ne man may kan Omar ne ko man de xaw ma ko xanaa nga waxal mako ko yonent bi ne ko ana allazi khalaqa allah qabla kulli shay'in nuri fa sajada lillahi wa baqiya fi sujudihi sab'a mi'ati amin fa awalu kulli shay'in sajada lillahi nuri wala faqra ndeysaan yonent bi ne ko yàlla sama leer gi la njëkk bindal sama leer gi mom la njëkk bindal mu ne gannaaw ba mu bindee sama leer gi sama leer gi continuer des foofa di sujootal yàlla lu tolloo juróom-ñaar téeméeri at sama leer gi man ma ngay sujootal di sujootal yàlla mu ne ko sama leer gi moo njëkk a sujootal yàlla man yonent bi te loolu duma ci puugarewu mu continuer ne ko yaa Omar atadiri man ana yow Omar ndax xam nga man maay kan Omar ne ko yow yaay kan mu ne ko anna allazi xalaqa taala al arshi wa nuuri والكرسي من نوري واللوح من نوري والقلم من نوري ونور الأبصار من نوري ونور الحقل من نور الذي في رأس القلق من نوري ونور المعرفة بالله في قلوب المؤمنين من نوري ولا فقرة قل اللولو يونتي بنكو صلى الله عليه وسلم نكو من ne ko man maay ki عرس xam ne yàlla bind na aras ci sama leer la yàlla nee na yonent bi sallallahu na man ci man ci sama leer gi ci lañ bindee aras waaye mu ne ko ci sama leer gi ci lañ bindee kursiyu ci sama leer gi ci lañ bindee lawul mahfuz ci sama leer gi ci lañ bindee xalima gi xalima gu nga ne Ibou Diouf mag naan yàlla ba muy amal alam gi xalimaam gaay bàyyi bàyyi lañ bindee lawul mahfuz Seydi Baraam ndeysaan yàlla ba muy amal alam bi xalimaam gaay bàyyi xali maam gaay bàyyi loolu la wax de yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne yàlla man sama leer gi waaw lu may xalimaam gi mooy bàyyi kon kay si leer ak yonent bi rek lañ mën a bindee xalima ga xama lu may wax nag waxi dof la waxi nit la nag ma ji ci noonu nag mu ne waaw si sama leer gi ci lañ bindee xalima ga waaye yonent bi ne ko si sama leer gi si lañ binde bët yi nga xam ne mooy bët yi muy gis-gis si ci sama leer gi si lañ binde xel bi nga xam ne man ci bopp doomu aadama yi waaye sama leer gi si lañ bindee maarifatu billah buy nekk ci xolu ñu gëm yàlla ci sama leer gi lañ ko bindee kon ma ne ana ñi nga xam ne dañuy weddi maarifatu billah te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ci sama leer gi ci lañ bindee maarifatu billahi ci xolu ñi nga xam ne dañoo gëm gis nga de ci xolu ñi nga xam ne dañoo gëm gëm googu nag mooy wax ji foofu la nekk gëm gi foofu la nekk de moo tax mu ne loolu man de puugare wu ma ci mu ne yow Omar attadiri man anna yow Omar ba tey xam nga man maay kan mu ne ko déedéet mu ne ko anna allazi min ajli aqasa allahu misaqa min anbiyai wa rusuli wal umamu bi iqrari nubuwati wa yatawaasu bi qarnan baada qarnin mu ne ko man maay ki nga xam ne yàlla dafa dëxalanteeg ku lereeg yonantu yi ne leen na ngeen présenté wax ma man ba afaa may ñëw ci jamono yonantu yëpp da ngay gis ne yàlla wax na leen yàlla wax na li nga xam ne moom mooy yonent yi sallallahu alayhi wa sallam ak ay yonentoom ne leen yonentu dana ñëw donc kooku moom mooy Muhammad mu ne lu la yàlla di wax ci alquran ne wa iz aqasa llaahu misaaqa annabiyyiina lamaa aataytukum min kitaabi wa xikma summa jaakum rasuulun musaddiqan limaa maakum la tu'minunna bi wala tansurannahu gaa yi luñ ko wax ñu ne ko waaw waaw seede nañ ko kon leer ak yonent bi sallallahu ma ngi noonu kon yonent bi yàgg na fi lool ci radiam jëlee nañ ci jaabir ibnu abdullah radiallahu anhu jaabir mu ne qultu ya rasulallahi sallallahu alayhi wa bi abi anta wa ummi axbirni an awali sayin xalaqahu llah jaabir moo wax ne ko maa gën si sama yaay ak sama baay yow yonent bi wax ma lu yàlla njëkk bind mooy yonent bi sallallahu alayhi wa di koy tontu ne ko xaala yaa jaabir inna allaha taala xalaqa qabla al asyaai nuuru nabiyika min nuurihi fa jaala saalika nuuru yaduru bi qudrati aysu saallahu taala yonent bi sallallahu alayhi ne ko yàlla sa leer ak yonent la njëkk a bind te ba koy bind ci leer ak yàlla la ko la daal di koy bind kon da gis ci leer ak yàlla ci lañ bindee li nga xam ne mooy leer ak yonent yi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ba ko jaabir laajee mu wax ko loolu mu ne ko nag booba dara amagut booba waxtu amagut law amagut xalima amagut aljanna amagut safara amagut dara amagut am ci boppam sax amagut léegi nag yonent bi moo koy tontu yonent bi ne ko ba yàlla bindee sama leer gi dafa toog ba mu yàgg mu bëgg bind mbindeef yi ba mu bëggee bind mbindeef yi mu daal di xaaj ca leer googa ñeenti ñeenti xaaj bàyyi leen xel ci xaaj yi dafay kaaj rek xaaj na sa leer yooya ñeenti xaaj mu bind ca benn xaaj ba xalam beneen kaaj ba mu bind fa lawul mahfuus ñetteelu xaaj ba mu bind ca aras ñeenteelu xaaj ba moo ci des ñeenteelu xaaj ba mu xaajaat ko ñeenti xaaj xanaa ñeenti yaa ngay bëri de mu xaaj ñeenti xaaj benn xaaj ba ci la bind li nga xam ne moom mooy mbindee fi nga xam ne ñoom ñooy enu aras beneen xaaj ba mu bind fa kursi beneen xaaj ba muy ñetteel ba mu bind malaaka yi kon gis nga malaaka yi booba lañ doog a am xanaa mu desaat beneen xaaj muy ñeenteel ba xaaj booba mu xaajaat ko yeneen ñeenti xaaj ñeenti xaaj yooya ci la bind asamaani juróom-ñaar ñaareelu xaaj ba ci la bind suufu juróom-ñaar ñetteelu xaaj ba ci la bind aljanna ak safara xanaa mu des benn xaaj mu ne beneen xaaj boobu mu xaajaat ko ñeenti xaaj ba mu ko xaajee ñeenti xaaj bu njëkk ba ci la bind leeru bët yi nga xam ne dañoo am gis-gis ci yàlla beneen xaaj ba mu bind ca leer ak yi nga xam ne bu xol yi nga xam ne dañuy dund maarifatu billah ñetteelu xaaj ba ci la daal di bind leer ak nit ñi nga xam ne dañoo am tawhid di wax la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bàyyi ñu ko ne ko alal mustafa al muxtaari min mahsar al bidi salatan wa taslimun min kulli wal bu'di wal ba'di mu ko yow daal yonti sallallahu alaihi wasallam ya ngi nonu ñu wex ñi ñu ñuul ñi ñu gàtt ñi ñu ndol ñi ñépp ci yow yonti sallallahu alaihi wasallam ci lañ baye ci yow lañ baye ko ci nonu nak yàlla bindu na nak adama xam nga kon léegi aadama ba ko yàlla bindee ba tey da gis na leer ak yonent bi sallallahu alayhi ma ngay wëndeelu ci aadama aadama ba ko yàlla bindee dafa jël leer ak yonent bi def ko ci gannaaw gi malaaka yi ñëw di ko kal di xool ci gannaaw di ko xool ci gannaaw ba mujj gi mu waaw yàlla malaaka yii di xool sama gannaaw gi ñii ñan lañ mu ne ko ñii da ay malaaka lañ yoo xam ne leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nekk sa gannaaw gi moo tax ñu taxaw sa gannaaw di ko xool Adama ne waaw yàlla xanaa leer googu mënoo koo def sama kanam ndax ma mën a jàkkaarloog malaaka yi gis leen yàlla jël leer gi def ko ci jëbi leer ak yonent bi ma ci jëkk Adama malaaka yi ñëw jàkkaaroog Adama di ko xool xam nga lu nekk sa kanam yow mënoo koo gis ba léegi Adama gisagul leer ga mu ne waaw yàlla malaaka yi gis naa leen baax na lool waaye xanaa leer gi mënoo koo def ci sama baaraam bi ndax ma mën a gis la nga xam ne mooy leer gi yàlla jël leer ga. def ko ci baaraamu sànneekaay bi moo tax ñu tuddee ko mu sabiha mooy baaraam bi nga xam ne booy taaya moom ngay wax attahiyaatu lillahi azakiyaatu lillahi attayibaatu asalawaatu lillah asalaamu aleyka ayu annabi ma ne xanaa xamuñ sax yaa ngi naan ayu annabi di nga sa baaraam te xanaa xamoo ne leer ak aqiqatu muhammadiya moo nekkoon ci baaraamu aadama bi moo tax nga naan nii di ko yëngal mm-hmm. jërëjëfe Baay Ñas ci noonu nag mu ne waaw yow yàlla léegi jël nga sama baaraam bi def ci leer gi maa ngi koy gis ndax am na lu des beneen leer gu des yàlla ne ko waaw des na leeru saxaaba yi leeru Aboubacar des na ak leeru Ousmane ak leeru ki nga xam ne mooy Omar ak mu yàlla mu ne ko waaw jëlal ñu nga séddale ma ko xam na Adama moom ko am fulla la moom mu daal di yàlla moom it mu ne mu daal di jël li nga xam ne moom mooy leeru Aboubacar def ko ci baaraamu digg bi. lii mooy baaraamu digg bi mooy baaraam bu sut bi mooy mooy leer ak Aboubacar kon baaraam bu nekk rek am na lu muy ci doomu aadama ak représenté ci doomu aadama moo tax boo tàllee sa juróomi baaraam baaraam yi war ngaa fàttaliku leer ak aqiqatu muhammadiya ci baaraam buy sabbaal waaye boo tàllalee bii war ngaa fàttaliku leer ak Aboubacar radiyallahu anhu waaye boo tàllalee bii nga gis ne mooy leer ak ki nga xam ne mooy Seydina Omar. ابن قطاب رضي الله عنه مومو نيك سي بارام بي موم لن تودي ليغا خامني موي بوي بارامو بن سار وايي نك سيدنا عثمان ني جيل كو ديف كو سي بارام بي موي بو نداو بي موي لا ني تودي بارامو سانخالين خنا امنا بو ديس كون بان مو ديس عليو ني كون عليو موم بارامام بان لا مو جيل عليو جيل كو ديف كو بو ماك بي مانا لا يونت بي واخون ني انا مدينه العلم وعلي بابها mu ne ba léegi dafay feeñ ci baaraam bu mag bi ndax baaraam bu mag bi bu ko daggee ci yow diye ju mat sëkk moom ngay joxe waaye rawatina baaraam bi bu daggee ci doom aadama pour mu mën a téye téye dara pour mu baax sax dafay jafe waaye baaraam bi mën naa dagg ci yow du la wàññi dara baaraam bee baaraam bee waaye baaraam bii nu muy gàttee nii am na lu muy enu loo xamante ni mooy leer ak Seydina Aboubacar radiyallahu Seydina Aliyu Seydina Aliyu moo tax kon yonent yi waxoon ne man maay dëkk xam-xam bi waaye àll yu mooy bunt bi moo tax àll yu mooma benn bis mas naa toog rek yonent bi oo àll yu ne ko àll yu kaay mu ne ko ñëw naa mu ne ko gëmmal say bët mu daal di gëmm bëtam yi mu ne ko laa waxal laa ilaha illa allah àll yu daal di ne laa ilaha illa allah mu wax ko ba mu yàgg rek yonent bi ne ko xooleel mu daal di xooleel rek ne raaytu rabbi bi ayni qalbi fa qultu laa sakka anta anta ne gis naa yàlla sama bëtu xol yi amul sikk-sikk ne yow la la allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatih lima fatih lima sawaqa naas la qibla qibla sukkandiku leen ci sama daraja ji sukkandiku leen ci sama garat bi ma yàlla may dégg ndax dafa màgg fa yàlla de soo ko weddee laajal aadama mi la doon wax ba mu amee problème jaay daraja yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo ñëw nekk awakaam peledel ko naa Nuux ca gaalam ga ba nga xamee ne gaayam lay xew xew na dégg nga ba leen yàlla di mbugal ca labal leen dégg nga leeru yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo taxaw wax na ko Seydina Ibrahim bi ñu ko dugalee ci safara wi lakkut foofu nag laa bëgg gën a insister lu tax lakkut nit kuñ duggal ci safara bo xamne ñuko taxal ëpp nañ junney nit safara wi boko ko juroom téméré mètre da nga lak ndax tangay dégg nga ñoo fexé ba ko ci safara wi safara woowu iblis sax ak saytaane mo fexé ba dimbalé len bañ mañ ko duggal ci biir safara wi dégg nga mu dugg ci biir safara ba lak lu tax ban maqama la nekkon nit ku dugg ci biir safara ci lu normal pour bo fa duggalon nit légui légui mu ñor waa lu tax daf doon dund la ilaha illallah laa ilaha illallah la doon dund képp kuy dund laa ilaha illallah doo lakk man gis naa te yéen gis ngeen koo xam ne takku téere takku ndomba ñaanut saafara defu dara di wér de salaatul faatihi ba egg ci dëgg laa ilaha illallah fekk kuy lakk beñe mu dugal ca loxo ba lakkut waaw loolu ndomba ko maye loolu xam nga lu koy maye mooy jaam dafa war góor góorlu war a góorlu ba egg ci dellu ci boromam ba moom amatut parce que amut te seetal sa bopp ndax am nga dañuy wax ak nit ñi ci xel wax ak ñoom ci xam-xam wax ak ñoom ci alxuraan wax ak ñoom ci hadis li ñëpp jàng waaye ñëw ci xel nag ñu laaj suñu bopp ana nga yàlla wax ci alxuraan ne kullu shay'in xaalikun illa wajhahu li fi ne lépp dafay xalaku kon ku xalakooku da nga xalaku kon amoo ki am du alaku maa indakum yanfadu wa maa inda llaahi baaqin kon amoo dara yàlla am lépp moo fi ne te lépp dana fi jug moom mu des fii kon képp ko bëgg a le képp ko bëgg a omle képp ko bëgg li nga am des fi jëlal li nga am boole koog li yàlla am dëgg la wala dëgg commerçant bu mag a mag a mag mi ne képp xaalis ci caay gii comme owoon ne la kaay ñu boolante maag yow xaalis da nga daw a daw a daw ba xëm da nga daw ba dee pour boolante ak moom lu tax parce que da bëgg sa alal ji gën a yokku da nga bëgg riis da nga bëgg sa am sax mais yàlla ci jëmmi boppam tam képp ko bëgg a omle boo dellu ci yàlla so amé xam-xam bés dina ñëw nga ñàkk ko so amé tar bés dina ñëw nga ñàkk ko soo amee daraja bés dina ñëw nga ñàkk ko so amé lo mën am bés dina ñëw nga ñàkk ko mais so amé yàlla do ñàkk bay nee man wajada allah faqad wajada kull shay wa man faqada allah ma wajada shay kon jef sëñ dara gam gi neex na yàlla ñu la yàlla fenn Seydina Ibrahima alayhi salaam dafa bëgg a jàngal nit ñi l'islam iman ihsan diina noonu la diina gërëgolu rek egg ci njëlloxtoon la bëri na koo xam ne ci daayiratul islam la ne ba muy gis nu joom bi moom mu ngi ci daayiratul islam dégg nga wax ji mooy jaamu yàlla ñiy jaamu yàlla ci maqaama islaam nga dem maqaama islam ku la loolu jaamookaay yàlla kese la wala ma maqaama marta maqaama boppam la mën na nga bopp maqaama boppam la mbooleem borom xam-xam yi jàng nañ baynama nahnu juluusu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam saata yawmin fa tala alayna rajulun sadidun bayaadi siyaabi ba addis bu addis bu gudda gudd la Seydina Omar bëriwut addis yu mu solo mais addisu maqaamaatu diin moo ko solo lii wane diina ju mat gis nga diina bu fekkee ñetti maqaama yi boole woo ko yonent bi ne sa diina matu man waxuma ko de Seydina Omar mu ne dañoo toog ak yonent bi benn bés toog rek benn waaye ne tëll waaye joo xam ne karaw gaa nga ñuul kukk mu ngi sol yére yi weex tàll tàll tàll amul poussière amul dara te kenn xamu ko ci ñun te bu dee gan la fii nii si euh, caajaay gi rek ku jógee woon sa àll ba di ñëw fii bala ngaa egsi ñun Kaolack lañ jógee waaye oto lañ dugg te balaa ñëw egsi sax biñ egsee danañ xaw a faxasu tuuti pour poussière te jamono boobu oto amul désert Makka bi àll Makka bi montagne yi xam nga ne ku fa doxee bu doon nit kuy dox la ak tànk ñëw konoon bu egsee nit ñi gis mu poussière yére yi dana tilim wala boobu cuxur cuxur waaye ma nga leer nañ Seydina Omar mooy nettali mu ne ma ñëw ba ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam sukk hoomam yi ci ñaari hoom yi yonent bi jël loxoom yi teg ko ci ñaari euh, pooj yi yonent bi ne ko yonent bi lan mooy lislaam lan mooy lislaam yonent bi ne ko lislaam mooy nga seede ne yàlla kenn la Muhammad yàllaa ko yónni julli woor asaka dem màkka yaakaar naa mën na de juróomi ponk yangu képp ku nekk ci yang ci lislaam baax na lool waaye ndax na l'islam place la boo xam ne escalier la buy yóbbu nit ki ci iman soo ma weddee ma ñëw alquran day wax ak yow qaalatil ahrabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna allahu akbar kaw kaw yi dañaa dugg ci l'islam bees ak si yonente bi ne ko yonente bi ñun am nañ iman yonente bi ne déet arrêté la eggagu leen foofu gaaw na mënoo dugg léegi rek egg fee kon li fi bàyyi ñes indi di ko leeral mooy li fi yonente bi baax te loolu képp ku nekk sa itte la war a doon nga fexe sa egg kaw-kaw yi ne yonent bi ñun gëm na yàlla mu ne déedéet yéen eggagu leen ci station boobu yéen yéen ci première station wala yéen ci première escalier mooy lan julli woor asaka nangam baax na lool waaye am na fu mu la war a yóbbu lu tax nga xam ko yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha lu ca topp wattaqoo ilayhil wasila la ilaha illa allah waaw mais xanaa nit ñi amuñ iman wala dañoo déggul ne yàllaay wax ak ñoom yàlla moo wax ak julli ñi ne leen yaa ayyuhal lazina amanu ku amul iman bokkoo ku gëm ne am nga iman nag yaa ngi ci biir yaa ayyuhal lazina amanu ñu ne amanu ittaqullaha wabtaqu ilayhil wasila kon boo leen bëggee ñëw ci man yéen ñi gëm yàlla ut leen ku leen indi ci man yàlla ko wax kon wasila mënta ñàkk bàyyi des ponkal mi dégg yàlla dégg alquran dégg yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na wasaa'il ñett rek la ba ci njëkk mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam te yàlla ñu ko wax qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullah su ngeen bëggee yàlla bëgg leen yonent bi la yàlla wax de wax leen ne leen su ngeen bëggee yàlla bëgg leen topp leen ma kon ngeen ma toppee yàlla bëgg leen kon ñàkk topp yonent bi day tax yàlla du la bëgg yàlla du la bëgg deuxième mooy li nga xamante ne bi mooy nga ut jaam boo xam ne dafa dellu si yàlla gis nga caajaay gi bi ñu bëggee ñëw bu fekkoon ne orienté wuñu wala bi ñëwee ba egg ci caajaay mosuñoo dem kër ñoom moor mais xoowut ñu nañu xaar leen ñu ci poste bi bu ngeen ñëwee taxaw leen ci poste bi ci côté côté ndeyjoor bi ñu taxaw fa xaar ko mu oo ñu téléphone ñu xaar ko mu ñëw jiitu ñu topp si ko kawam konoon danañ réer duñ mës a dem këram wasiila ngoog wasiila taxulaa jug li ñu taxoon a jug du moor du caajaay mais lii lañ bëggoon fekkee si maanaam taalibe bi am ak sëriñ bi xam nga moom li ko intéressé mooy li ko sëriñ bi jox lan la foofu nag dañuy taxaw wax sëriñ si lu yore ndax sëriñ mën na yore ay caaxaam bëgg koy jox ay nit di ko askane yàlla loolu tam du dëgg sëriñ si yoruñ dara li may li ti yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yore moom la ñuy tàllal moom la ñuy tàllal kon mu ne la wattabi sabila man anaba ilayya yow mi bëgg a ñëw ci man seetal ku xam yoon bi mu andi la looloy sëriñ kat am na solo de ku ko weddi ñun buñ fekkee bañ jógee Kaolack dugguñu woon ci oto ak safoor ba léegi egg guñ kon safara boog am na solo ku bëgg dem ci yàlla mu gaaw utal sëriñ bu la neexee na nga bañ a ut sëriñ mu ne ñetteel bi mooy bu la neexee nga bañ a ut sëriñ mooy lan sa ay jëf yu baax waaye ku wax sa jëf yi baax na parce que yow jëf yi bés boo ci bokkee am problème sëñ daara jëf yi bés boo ci bokkee am problème xoolee yow mi julli taxaw man li may julli li may naafila li may xiyaam li may nangam ah yaa ko def taxaw nga laaj sa bopp ndax yow la ndax yow yaa ko def wala yàllaa ko def yàlla ne wama ta'malun ma len bind ak li ngeen di def nga ne yow ya def da nga japp fo jele ndox am nga ndox ku mom ndox ku am xel ku la may xel ku la may katan ku la may suuf ku la may alquran katan gi ngay taxawé ku la may su ko yàlla roccee looy dese defoo ci julli gi tous mo tax ku jamo yalla ci côté bobu da ngay am problème àllaaxira ñooñu ko àllaaxira ñoy am problème bo déggé ñu ne kuñu isab nga perte moy ki jamo yalla japp ni mom la am nga problème de li ma julli li ma woor li ma asaka li ma saraxe li ma nangam li lépp ay waay lii jàpp nga ne yow la bu àllaaxira yàlla na yow la koy def ku taxoon nga def ko dangaa bëggoon nit ñi wax wax nañ ko jeex na ashabtum tayibaatikum fi hayatikum dunia wastamtaatum biha fal yawma tujsawna asabal un jërëjëfee bàññees yàlla ñu ko yàlla fayal beneen bi mu gis weer weer ba mooy maqaama iman mooy beneen station bi ben serigne bu baax cheikh ndo serigne bi deg na ko bis bu di jangale mu ne so beugé xam l'islam ñetti maqama yi ni mu mu ngi melni am fi am fi am na ay pël man na pël yi du ma leen di wax dara nak serigne bee tax fi ne mënatumaa tooñ pël yi luma nek nek nekk deug mu ne dem nga ci gétt ga jënd ji meew ba nga jëndé meew nga andi def sa lek mu jeex jeex na lolo l'islam yow lolo la doy jeex na mais man nak man badian dama jël sama meew mi ma bayé ko fi ba suba ba gannaaw suba mu way nek so ma ko ba gannaaw waataati suba mu nekk diw ñor ma boolante am meew am soom aw dim ñor nga ne aw ma soow aw ma diw ñor yaa perte waaye man am na loolu mooy diina ji diina daa ngi noonu islam la yow di da ne yow man lii rek doy na ma yow doy na la lekk nga sa meew jeex na mais bàyyi ma ma continuer sama meew man sama meew danaa ci am ñaari bénéfice mooy danaa am l'islam am iman am ihsan te ca maqamat diin salaasa fa laay ñëwaat de bu fekkee bari am heure bi doon na dagg mag ngi yàlla jërëjëf ah maqaamatu diin yooyu ñaareelu station bi boolem ko jàng-jàng ko mu ne ko waa luy iman mu ne ko gëm yàlla ak yonent gëm téere yàlla wàcce yëpp ak gëm dogal bu dee neex ak bu naqari jeex na walla jeexu ak àllaaxira waaye man foofu toujours boo fay wax dama ne la fa gën a interese yàlla mooy dogal bu naqari xam nga dogal bu naqari fi la yàlla examen nit ñi mu ne foofu amul jëf jëf bi islam la allahu akbar jërëjëf sëriñ bi foofu gëm rek pratiquer nangu rek yàlla ñu ne yàlla fayal ah comme boobu mooy trois deuxième bi troisième bi foofu nag fa la coow li ne mooy Ibrahima moo tax ba mu fa eggee ne inni wajjahtu wajhi wajjahtu wajhi lillazi fatara samawati wal ardi hanifa wa ma ana min al musrikin laa ilaha illa allah foofu lay waxee an taabud allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak mooy nga jaamu yàlla mel ni yaa ngi gis yàlla soo gisul yàlla mu wér la yàlla ngi lay gis yow yaa sàggan ba mënoo koo gis wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin laa tubsiruun mooy yéen a xoolul waaye bu ngeen xoolee gis wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid yaa xoolee yàlla ne maa la gën a jege sa xablul warit waaye yow maa xam nga ne xablul warit bu ñu ko daggee ca yow ñu suuli la yóbbu la ca euh, ca fee yàlla ne maa la ko gën a jege nga ne yàlla dafa sori fan la sori te foo mën a jublu fa ay nematu wala fa sama wàccu laa billaahi wallaahi li fi bàyyi ñis indi du ay fo léeg-léeg nag am ñu koy ootee di ko foyee bàyyi fowut folu li sëriñ bi di wax كاي مو واخال لا يوم خمول باي باي دافني سما سما سما ميسيون مان سما مبير لي رك لي واعلموا اني شاني كما علمتم من اراد ان يكون معي في حالي فليسلك طريقي في الاقوال والافعال بانتظار الاوامر واجتناب النواهي والتعطش والتسوق الى وصولي الى مرضات الله ورسوله gars yi sama mbir maa ngi nii bàyyi luy sa mbir mu ne sama mbir mi kaay ma wax leen ni ngeen ko xamee ku bëgg a ànd ak man jaaral fi ma jaar waxeel ni may waxee bàyyi nooy waxee mu ne mooy ragal yàlla ci lu nëbbu ak ci lu feeñ soo nekkee nit ñi wane ragal yàlla boo gisul kenn ragal yàlla boo nekkee sa bopp ragal yàlla foofu la problème bi ne nag boo nekkee sa bopp ragal yàlla foofu la bàyyi yóbbu nit ñi waaye lii ku ko bëggut ku nekk bëgg nga lii soo ko amul tam bëgg ko da ngaa xamut bàyyi waaye boo xamee bàyyi bëgg ko mu ne nga ragal yàlla ci lu nekk ngay mar marlu looy mar fexe am ngërmande yàlla ak yonent wallahi sëriñ bi bu duutoon ak ngërmande yàlla ak yonent soxlawuñ ko sëriñ bi soxlawuñ ko xataa yonent bi lu muy rëy rëy su fekkoon nit mën naa egg ci yàlla sans moom dañuy dem si yàlla dëgg la wala dëgg waaye yàlla moo ne su ngeen bëggee ñëw ci man nag jaar leen ci yoon bi maa ngi jéggalu maa ngi tuub bëggumay guddal sëriñ bi ala kulli haal bëggoon euh, salaamaaleykum su ma nijaay professeur la woon fii muy oustaz ba ñuy nekk gone lañ xam caajaay mën naa wax ne bu mayee Kaolack caajaay leen njëkk xam tuubal na fi ay nit ba tàyyi indi leen kër yoro ñu nekk ak ñun di góorlu ci diina ji mu tarbee leen xamal leen yàlla léegi suma tonton bii di papa Ndey Diouf wax na ne moo ko joxoon tariqa tijaaniya dëgg-dëgg maa ngi leen di nuyu kon ci turam bëgg nañ xamante ak ñooñu ñëpp itam parce que itam yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ne bokk na ci baaxee sa ay waajur nga jokk seen ay kóllëre waaye fekk nga xam ko comme ñëw nañ fi nag fas nañ yéen a xamante ñoom jokkante ñoom ngir wéyal suñ kóllëre nijaay rek waaye du leneen ñun utuñ fi dara bëgguñ dara nam nammuñ dara sëriñ bi rek lañ namu ta mu ngi nii asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu jërëjëf ah, jullit ñi alhamdulilah kàddu yi fi jub yëpp doyoon na rek ñu jox sëriñ bi mu résumé ñu lépp lu fi wàcc daanaka waaye ci ndigalam rek ci lu ñu joxe kàddu ngir ñu jotal suñu kàddu kàddu cant yaram la ak ngërëm di sant ki nga xam ne mooy suñu daara Mbaye Niass nga xam ne moo taxawee gàmm gi muy kenn si ñun nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo bokk gox bi ñu dëkk suñu njiit la suñu royukaay la ndax moom moo ñu jiitu ci sëriñ bi ñoo topp ci am alhamdulilah ku dégg gàmm gi xam ne delloo si na cosaan Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu nii la daan gàmmoo di neexal baat bi ndax bëgg bëgg Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam naari sax daanaka li bàyyi wax ci wolof duñ ko dégg waaye waaw gi rek doy na leen li bàyyi di wax bàyyi waxam yàgg mu ne waaw waaw gi rek ñoom ñoom doy na leen bàyyi wax ci wolof dix heures ci guddi ba dix ci suba lépp di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa ci taggin boo xam ne suñ daal wax na ko tagg na ko ci ci zahir tagg na ko ci baatin waaye tagg na ko ci baatinul baatin bari nañu tagg yonent bi ci ay lef waaye ci moom boo ñëwee fekk mu tagg yonent bi ci mbooleem maraati bi tagg ko ci mbooleem maxaama yi benn bayti rek benn baytam la sëñ Daara gàmmoo mooy nuuru awlal wujud wujudan woo asul usul wal anjaali leera yonent bi mooy njëlbeen ak am ci am mooy bàyyi mooy cosaanu bàyyi ak doom yi benn bayt rek la gàmmoo bàyyi bayt yi mu bind ci yonent bi li mun a lool ay junne junne junne bayt la yépp yépp la ko tagg la ko tagg sallallahu alayhi wa sallam tagg Cheikh ci njëlbeenam mi mu jóg dundam lépp lim yent bi la ko jagleel ay tagg ni mu ko ni mu ko taggee ci ay xasidaam noonu la koy waxee ci wolof ci gàmmu ñëpp di déglu muy fiiri xiste yi benn par benn ba su paree képp ku fa jógee sa xol dana dellu si yent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu damay dellusiwaat rek ci njëriñu gàmm ni sëñ Moussa Badiane doon wax léegi daana gàmm ba fajar nga dégg ci kaset ñëpp dégg nañ ko ku bëgg a tuub ku bëgg a tuub ku bëgg a tuub ku bëgg a tuub ñu la koy waxee ku bëgg a tuub gars yi di yëkkati loxo benn par benn ku bëgg lislaam ñëpp di yëkkati loxo ñu bëri di yëkkati loxo muy saaxee baat bi wax leen ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah sa leen baatu seede yi ba pare diw noo tudd nga ne diw mën a tudd naa la muhammad diw noo tudd mën a diw mën a tudd naa la omar da koy def di ko def di ko def di ko def doo xam ñaata nit la tuubal kon gàmm am na njëriñ fekkee ne bu gàmm ba ci fajar ga nit ñi dugg ci islaam dugg gu bari googu loolu rek jaroon na chaque jour ñu gàmm jeexital boobu mu ngi am ba léegi boo gisul ni ku ñëw ne la tuubal ma tamit da gis koo xam ne ku dëngoon la bu jugee ci gàmm gi mu jub gis koo xam ne ku soloon yàlla la waaye bu jógee ci gàmm gi rek mu demaat subaat ci yoonu yàlla li rek jar na ko kon dañuy góorgóorlu ci jotaay yi di for di ko bëril moo tax ni saa soo xam ne sëriñ bi mbooleem gox Sénégal yëpp am na fa gàmm goo xam ne samp na ko fa ngir jubbanti jaamu yàlla yi bañ tàmbalee ba léegi xaala laahu xaala rasul ñuy dégg xaala Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu dugg na ba dugg ci sax ay béti El Hadj Malick nga xam ne Sénégal kenn ku nekk ci kàngam yooyu mënoon yor tarixa boppam waaye ñëpp ñu ngi boor ci ci gannaaw Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu loolu nag occasion yooyu mu may ñu nga xam ne jamono bu nekk ñu ngi gàmmu ñu ngi waxtaan ci yàlla ay nit di ci juboo di ci leeree di ci gindee ko fay googu yëpp yal na wàcc ci moom wàcc ci njabootam wàcc taalibe yi yal na wàcc ci mboolem ñi nga xam ne mu ngi leen jiital ñi nga xam ne ñu ngi taxawee loolu jamono bu nekk ci turam ci ndigalam ci numéro dem bëgguma guddal yonent bi sallallahu alayhi dafa ñëw jàngal ñu ne yàlla benn yàlla amul bu dul yàlla sama baatu laa ilaha illa ñii di bañ ñi xeex ak moom mu xeex ak ñoom ba baatu laa ilaha illa allaahu samp ba mu demee Médine ba am doole ba fattu Màkka jub bi mu ñëw gañee noonam yi jëlaat Màkka jëlaat kaaba gi aaya yi nga xam ne dafa mu wàcc gannaaw ga boo leen toppee aaya la yoo xam ne yontu bi la joxoon sallallahu alayhi wa sallam man yuti allah wa rasuluhu faqad ata allah in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah ba mu jeex fu yàlla waxee boppam dana ci indi yonent bi ku bëgg dara ci yàlla fokk nga jaar ci yonent bi pour nga mën a am dara ci yàlla boo jaar ci moom doo am dara waaye gannaaw gi am na jaamu yàlla bu ñuy wax Cheikh na Ahmad Tijaan Chérif radiyallahu anhu dafa ñëw ne soo maam Yonent bi sallallahu alayhi moom laa gis mu jox ma tarixa bi jox ma ay charte ci tarixa bi jox ma ay garanti ci tarixa bi képp ku dugg ci bi kenn du lu képp ku dugg bi dangay dem ajjana ci lu lu xisaab képp ku ci tarixa bi yàlla moo la garanti doo dajeek mbugal yu baari yoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jox fu tax may dugg foofu ndax mbir la moo xam ne dana bëri ko taxaw ne mën ko weddi parce que amul benn dalil rek ne Cheikh Oumar Laano gis na maam gis na yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi sallallahu alayhi wasallam jox ko ay ay mbir jox ko tarixa bi loolu waaye jamono mooy àtte bu mu waxee ba léegi képp ku bëgg yàlla bëgg yegg ci yàlla doo am doo egg ci wusul mukk ci yàlla mukk bu dul nga jaar ci tarix fokk nga jokkoo Cheikh Tidiane ngir nga mën a am fatxu soo ko deful doo am fatxu kon tarixa bi bi ñu ko yàlla di yëpp di ko jox garanti ko renti boobu jamono garanti boobu jamono moo koy moo koy moo koy moo koy dëggal te moom du yorantu amul wax yu waaye tarixam bi képp ku bugg a egg ci yàlla da nga ko tarix da nga jaas tarixam muy muy muy tarixa boo xam ne bàyyi mu ne ussa bi sunnati wal furqaan tarixa bi ñu ko sos ci sunna ak alquran boo xoolee wirde wi du dara bu dul istixfaar saatu ala nabi laa ilaha illa allah te lii kenn mënu ko tere jullit bàyyi corrigé na si ay ay ay borom xam-xam yu bare bare bare bare am na ko mos wax ne ko yow Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ni nga amee xam-xam da ngay dem Afrique nga bind téere boo delloo nga bind téere wax ne tariq tijaan baaxut nga génne si nit ñi ndax bidaa la bàyyi na ko yow nag xam nga tarixa bi xam nga Cheikh Tijaan yi mu dëri xawma ko est-ce que jàng nga téere tarixa bi mu ne ko déedéet ko mu bàyyi na ko man man man man tijaan la man ci bi laa nekk ki xam tarixa bi ak ki xamul tarixa bi bu ñuy wax kan ma war a wax mu xanaa ci xam tarixa bi mu ne ko déggul ma wax la wax ko saalum tarixa bi wax ko lan mooy tarixa bi ci sunna ak alxuraan gannaaw gi waa ji nag kon yow war ngaa bind téere ngir saxal loolu ngir gindi li nga xam ne ñu ngi ñu ngi inkaar maam ci benen xissa bo xamne ni nga ko jàngee ci imam hasan Cissé noonu daa benn xaritam bo xamne da ko don wax rek nako yow non ko dafa dafa wax ne man dama bëgg jokk ci tariixa mais son problème moy dama dégg ñu ne tarixa yi bidaa lañ rawatina tariixa tijan tam man wax dëgg yalla jaamu yalla neex na ma bëgg na jokk ci tariixa bo xamne dal waye bëgg na la laaj nga gindi ma ba xam ndax tariixa tijan baxna mëna ci dugg wala déet yam nako duma la dama lay defal experience rek nga def ko sa bop dangay dem ci ñi nga xam ne dañuy weddi tarixa nga nekk ak ñoom une semaine soo fa jugee nga dem ci ci fi nga xam ne fa la tarixa sosoo muy muy zaawiya Cheikh Tidiane radiyallahu anhu nga def fa une semaine nga xool ñaar ñaari barab yi loolu ci dee rek nga jël mu dem njëkkee ci zaawiya bi buñ jullee julli farata yi ñu génne jukki bi ni ko baaxoo ni ko Cheikh Tidiane waxee radiyallahu anhu jàng ñaari xisib àndale ko di ko jàng jàng bu neex suñ paree am ñu nekk ci wet gi di di de ñi ngi zigar ñi ngi wazifa mu nekk ñom une semaine xolom bi dund yalla bam fa jógee dem ci yenen gaay ñi xamna ñom buñ selmalé ñi ngi ñi ngi ci daru wolu yalla yi di yéferlo ñi nekk ci tarixa yi di leen yobu safara jamono bu nekk ñaari fa la fa def rek doyal mu ne man sama experience may ma man traité yalla laa li nak dama koy wax ngir jamono bu nekk am nañ ay dégg-dégg ci biddaak na waaye xam-xam rek moo ñuy séparé képp koo xam ne am nga loo bugg a leerlu ci tarixa bi téere yaa ngi ne xus bind nañ ci tarixa bi bën xam ne bind nañ bàyyi bind na ku topp Cheikh Ibrahim da xam ndax tarixa bi daal loolu bi daal rawatina tarixa Tijaan bi nga xam ne mooy suñu tarixa bi si nga moom la bàyyi feeñ di borom faydu nga xam ne lu doon Pape Diouf wax fu la oustaz fu laa bëggoon ñëw waaye taa mooy ma ko gannaaw tariixa am na lu ci ne ci kanam te mooy faydu islaam ak imaan ak ihsaan fi ne muy sharia ak tariixa ak xaqiiqa lii laa bëggoon a yem mu ne tabaski di ko indi di ko indi gént la waaye sax ñun waxuñ gént dañuy wax dañuy wax yàqasatan laa mën naa mën ndax Cheikh Tidiane gis bu gis yonent bi du gént te ko gis jaxaran te léegi ba léegi am na ñu gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam am na benn aaya boo xam ne ci alquran la foo laay foo laay jeexalee aaya bi dafa wax ne aw man kaana mayitan fa axyaynaahu wa jaalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaasi kaman mathaluhu fi zulmaatin laysa bi xaarij minhaa kazaalika nuzyyinu lil kaafiriina maa kaanu ya'maluun lan la aaya bi wax yàlla mooy wax أو من كان ميتا خنا غيسو كي خامنا فاتو نو فاحييناه يدندل كونو نيالا Yenay ligay fay du bay bi ci barahama Kossy TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay bi ci ci barxama ñu ngi gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla yàlla